damay bu baax di gërëm le directeur général de la Sénélec monsieur Pape Demba bi notre frère bi nga xam ne dafa recevoir une délégation des femmes de la commune yi nga xam ne dañu ànd doon benn say teg benn grande calebasse bu ñu tuddee la grande calebasse de l' émergence Faisal. Faye Sall calebasse ñu yóbbuloon ko le directeur général bi mu démé mu waxtaan ak ñun waxtaan bu rafet contane ci dynamique unitaire bi nga xamné jigen ñi jël nañ ko yëkkati xaaliss dugalal ñu ci biir calebasse bi waaye itam ñaax ñu pour que ñu gën a engagé ñaax ñu pour que ñu gën a déterminé ñaax ñu à wax ñu nag yóbbante boo xam ne def ne nañ ko teg ci loxo mandataire la président Mouhamed Ndiaye Rahma monsieur Pape Demba bi tey nee ñu su ngeen demee ngeen wax Mouhamed Ndiaye Rahma ne ko na voter parce que mon mot am légitimité woote té bu wootee incha ñun ñep dinañ ko ñew wuy ci ndax ñun liñu ñor rek moy le président de la république liñu ñor rek moy la victoire de la grande majorité présidentielle dans la commune de Kaolack. démb bi tay mo ñu jëk jox 3 millions biñu ñëwé tay tey Mouhamed Rahma jox ñu 6 millions loolu yëpp nak buñ ko défé pour dooleel jigen ñi la pour que ñu gëna massifier massifier euh, grande majorité présidentielle. pour que ñu gëna mëna ñaax nit ñi waxtaan ak ñom ba élection yi di ñëw ñu am ci ndam. awa yow ya réussir lu nga xamné ñepp jëm nañ ko mu télé di délo ñukal diko gëreum gërëm Pape Demba bi tay deug la doomu salum la kon lu xalé yi def lu waa Kaolack def rek war na ci dugal loxom def na geste bu rafet ñuko ci gëreum diko ci sante beral nuyo ak gëreum nak. ki nga xamné ne li tax motax motax mu muy suñu jitu ak muhammad rahman ñun de ñun jigéen ñi fi toog ñépp di jigéenu benn Bokk Yaakaar jox nañ la suñu kàddu jox nañ la suñu loxo ñu ngi ci sa ginnaaw ñu ngi jëm ci ay élection billaahi wallaahi taalaahi di nga xam ne am nga ay jigéen ànd bi daal yàlla bu ko yàlla tas yàlla bu mu tas ba ñu dem election ba génn ca élection yooyu dem présidentielle waaye lii bu dañul bu dakkul wóor na yàlla ak yonent ba victoire bi ñu bëgg fii à daa daañu ko am ndax defe naa ne ñu fi toog mooy la crème de Kaolack kenn ku ne xamante nga ak sa morom te ñun ñëpp ci dëkk bi lañ dëkk kon ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér. ñun ñi nga xam ne dañoo nekk njabootu Macky Sall te nangu ko bu baax nag ñu am fayda jooju mën a dajaloo le maximum possible teg ay détails fële te dem ci l'essentiel mooy dem ci suñu ay list gagné suñu ay élection jël suñu ay structure jël suñu mairie jël suñu président jël suñu conseil département jël lépp lu ñu war a jël mayuñu kenn dara looloo du nekk rek dañuy toog di dajaloo tax taa di waxtaan tàccu dañuy liggéey liggéey boobu nag ñi ngi ñi ngi remercier président Pape Demba bi tey euh, directeur bi nga xamante ne dugal na ci loxoom waaye li ñëpp wax mooy dëgg yaakaar bu fekkoon à chaque fois nga def social ñu ëlbatiku dugal ko ci calebasse heure bi calebasse bi wekk na bu yaga yaga yaga yaga yaga yaga kon nag dañ la koy présenté wax la ne dañoo indi outil boo xamante ne outil bu am solo la boo xam dina gën a social boo xam dina gën a ñoŋal cohésion waaye moo xam ne presque dafay nekk école boo xamante ne la école boo xam ne politique la ñun ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi ci biir mouvance présidentielle dinañ ci jàng suñu politique di ci def li nga xam ne moom la war. ci li def ak li mu wax Pape Demba bi tey li ñu boole maa ak moom moom xam man xam naa ko donc maa ngi jàpp ne li def pour jàppale jigéen ñi loolu moo war. limu mu wax tam ci sun digënté ak limu wax ni kaw la wara doxé lolu inshallah dar dara munta am lu may loolu lu may ñu bok ñun ñëpp tok di waxtaan ñu bok di nasano ñu bok di nesenoo parce que ñun ñëpp lima japp jàpp damay wax ni mané fi ku fi cëpp cëpp rek signature mak Sall bee koy def bu ko rop ko ropé 10 minutes say mbokk yërem la kon nak as gor gune la ko def lamu doon waru ko kafe waru ko foyé waru ko sagané ci ñun ñëpp ku ci nekk da ngaa am dubaaru sàmm signature boobu nekk sa tur. kon yéen jigéen ñi gàcca ngalaama maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen encouragé wax ngeen ne njëkk dem ngeen ci dem ba mu ubbee affaire bi 3 millions man tam danaa barkeelu joxe 6 millions.